nous on est là du côté de la démocratie on est là du côté du peuple et que képp ku nga xamante ne y a def lu nga xamante ne nañu peuple bi tu verras la presse devant toi et puis tu verras la presse nous conduire di def convenablement. merci beaucoup voilà le message fort. Euh, jërëjëf Daouda Mine ñu ngi leen nous sommes baax yaa Sénégal instant Dakar instant euh, ñu sommes nuyu ñu bàyyi la nga nuyu mbokk internet. waaw maa ngi leen di fay maa ngi je suis journaliste. nek président de la commission de la carte nationale de presse. ok euh, tay ñu tek kenn ci suñu natango di Pape Alé déjà nak nga gissé tek loxo bobu ak liñ ko tuumal. waaw man euh, euh, dama am habitude di wax né man duma dugg sax ci ay fond dossier bi ndax liñ koy jiñ mom moko def wala defu ko loolu du sama tier du sa tier tier justice la mais ñun liñ japp moy ya un journaliste bu nga xamantene japp nañ ko ñun on est des journalistes. pour le principe li ñu war def moy jóg xeexal suñu natanga boobu pour que mu génn kasso bi parce que ñun dañ japp ni journalistes journaliste warul dugg kasso dans l'exercice de ses fonctions surtout que Sénégal ñun xam nañ ko je suis dans la presse depuis 22 ans depuis 2004 nous ñu benn journaliste bu nga xamanté dugal nañ ko kasso dans l'exercice de ses fonctions. le dernier journaliste bu ñu dugal kasso dans l'exercice de ses fonctions c'était Madjambal Diagne on s'est battu comme aujourd'hui en 2004 pour que mu génn kasso tay Madjambal Diagne mi ngi ak ñi nga xamanté ñom ñoo nek ci pouvoir bi

Ousmane Sonko momoko man moom moo yow moom ko ñun ñëpp ñun ñoko bok bokk nous avons cette obligation nak de défendre notre notre pays agression bu joggé ci Macky Sall ñu wan ko né agresser nga la démocratie sénégalaise bu joggé ci kenen ñu wan ko agresser nga la démocratie sénégalaise aujourd'hui on pense que y a une agression bu nga xamante ne def nañ ko ci démocratie sénégalaise en prenant un journaliste sentinelle de la démocratie dugal ko ci kasso bi il était de notre devoir ñu jóg commencer l'homme xeex pour que mu génn fait que nous na après nous, en famille on va se retrouver on va laver le linge sale en famille parce que nous, voilà on va vers les assises de la presse il va falloir qu'on se dise des vérités en tant que journaliste nous se dise nous muy sommes ndax il y a des choses à améliorer nan quelles sont les voies et moyens à faire est-ce qu'il y a des textes à corriger Lors entre nous, nous nous discuter et Inch'Allah on va le faire mais pour le moment les tax ñu nous ñun n'y du lenn pap Alé ñaan nañ ko genn ci kasso bi tay sa xel dafa match ci walu yoon on parle de code de la presse l'article 11 et l'article 5 bi nga xamné quand même amna jaxaso bu ci am yow en tant que juriste euh, quasiment la nga gis ci lool waaw xam nga man dama nek ko xamantene man légaliste la lepp lu nga xamantene dafa nek ci suñu texte man dama japp ni mënuma tok mané man juriste bon jang na droit xamna li nga xamantene mom mo nek ci texte yi mënuma tok mané bon texte yi de façon liñ fa liñ fa teural du yoon du deug du yoon parce que quand même on a des représentants du peuple qui à l'Assemblée nationale qui ont voté des textes te dama jàpp ni textes yooyu également war nañ ko di ko jëfee tey boo jëlee article onze bu nga xamante ne ci code de procédure pénale daf ne képp ku nga xamante ne da nga génne li nga xamante mooy secret professionnel dañ la war a teg yoon mais journaliste du moom mooy génne secret professionnel le procès verbal d' enquête préliminaire du journaliste moom moo koy def tey les rapports d' enquête enquête interne c' est pas le bu faites ne da nga jël secret médical mais journaliste de médecin du moom mooy dem di génne secret médecin ana ki nga xamante ne moom moo ko woon garder ba nga du sur la place publique kooku mooy auteur principal. à la limite journaliste bu ko génnee il est complice bala ngaa jàpp complice nag dama nga jàpp auteur principal donc cet article là ne peut pas nous être opposable beneen bi moom mooy l' 5 du code de la presse effectivement daf ne journaliste bi am liberté dem uti information partout mais dans la limite du secret professionnel du secret de l'enquête de l'instruction et de la réglementation applicable à certains sites donc si vous voulez parler palais de la république vous avez une autorisation avant de fay dugg c'est une réglementation vous voulez dem pam ci caserne militaire avez une autorisation pour dugg fa sinon vous n'avez fa jàppee problème c'est la réglementation mon moo mais tey vous li nga de ce moom euh, secret défense li ma wax sànq ci affaire secret professionnel secret défense moi je suis pas un homme de tenue secret défense du man maa confectionner du ne peux pas téye du man maa garder ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko il doit faire en sorte que ces secrets-là ne se retrouvent pas sur la place publique. te lan mooy seen dans tout ça pour que l'article 5 également ñu xoolaat ko ba nes peut-être li nga xam ne moo euh, Pape Alé Niang daal ci beneen taskati xibaar. non xam nga dañuy wax dans toute dans chose malheur est bon pendant très longtemps ñun nous ñi nga xamante ne xamoon nañ taxi yi on attirait l'attention sur un certain nombre de choses. on a toujours dit que les textes dañ leen war a pour que nit ñi xam ko sénégalais xam ko tey jii cette affaire là par Aw la ñaam permettre na a tous les confrères ñu dem gëstuwaat textes yi et se rendre compte que y a des problèmes dans nos nag pour nous de retrouver waxtaan suñuy textes segg ko xool li nga xamante ne jugu ci ñu wax ko pour éviter que suba li dal Pape Alé Niang dal la wala mu dal ma wala mu dal keneen. Euh, divergence bu am ci la presse parce que ñu bëri jàpp nañ Pape Alé Niang li muy def c'est sauf du journalisme et tout ñu bëri bëri jàpp ne dafa tooñ euh, d'autre part les gens tooñul dafa nekk ci droit loolu nag nga ko gisee de façon générale. mooy li ma wax léegi ñun conjoncturel dañu am structurel le problème conjoncturel xam nga bi nan la ñuy def problème conjoncturel nag bu amee bala ngaa lijjanti structurel da ngay régler conjoncturel ba pare lan moo xew Pape Alé mu ngi ci kaso bi moom moo tooñ moom moo tooñul man man de sama yoon newu ci je me dis que voilà nous ko génn ci kaso bi maintenant moom moo tooñ moom nous, nous devons mu normal ni normal wala normalul après nous, on aura l'occasion de nous retrouver laver le de sale en famille xool li nga xamante ne baaxul ci suñu liggéey ñu def veiller à ce que nos organes internes on a le corps, on a le on a le cerveau, on a d'autres organes veiller à ce que nos organes là fonctionnent normalement pour régler les problèmes en amont avant que procureur de ci am yoon. am na yeneen yoo xamante ci plan d'action bi la bokk mais bu nous, sañoon loolu duñ fa yegg parce que li ñu intéressé Pape Alé Niang génn am nañ ci yaakaar nag parce que quand même on a deux retours yoo nga xamante ne nañ dans un avenir très proche du yag trop dina génn ci kaso bi mais nak su fekké ne nak dem na ba nga xamante ñu ko bàyyi on est obligé de nous battre avec nos armes et bon ce sera peut-être une bataille avec des armes non conventionnelles par moment. Euh, ñu gis sa teewaay tey ci manifestation bi xam la presse ñu ngi en collaboration également avec waa Colideb nag nga cette manifestation. donc ñun suñu teewaay si c'est normal boo leen di xool euh, def nañ conférence de presse pour wax ni euh, tey dinañ euh, sursoir suñu manifestation bi parce que si vous vous rappelez bien nous tamit waroon nañu amal doxub ñaxtu place de euh, de l'Obélisque jëm si nga xamante ne mooy rond-point de BCEAO mais après en tout cas discussion ak waxtaan yi ñu amal suñu digganteeg waa CAP muy coordination des associations de la presse dañoo jàpp ni ñun ñun suñu defee fee ñoom ñu def fii boobaa ñu war a ñëw fii ak ñu war ñëw fee ñooy en deux te loolu du arrange du arrange combat bi. parce que bu leen fàttali dañoo nekk dans un combat tellement stratégique ba su fekkee dañuy disperser force yi rek bu boobaa ça reste pour day profité wu ci Macky Sall mais bés bu ñu boolee force bu boobaa day mën am lu ñu bëgg ci kaw Macky Sall mi nga xamante ni seetlu nañu depuis mois de mars ba léegi lenn la fi nekkee ci réew mi muy nopp ay sénégalais muy tëj seen làmmiñ muy xool ñi nga xamante ne peut-être ils sont critiques par rapport à sa gestion nébuleuse mu jaay leen benn tëj leen ci kaso bi ñun nag

29 milliards yu ñuy jiiñ euh, Mame Mbaye Niang Prodac fan la mujj 108 milliards yu ñuy jiiñ Siré Dia SN Post fan la mujj 6000 milliards yu ñuy toppee rekku Macky Sall muy Aliou Sall fan la mujj 94 milliards yu ñuy toppee Mamour Diallo direct ex directeur wala ancien directeur impôt domaine fan la mujj su ma doon liste fii laay fanaan loolu ñu koy muy wane ni rek nous sommes dans un dans un état ne la justice marche à double vitesse. doomu Mariama Sarr ministre d'État fan yële passé dañ ngeen ko mu am ku mu fiir fii ci VDN bi procureur bu ñu joxee dossier bi daf ko classé sans suite sous prétexte que waa ji mu ndëkk bu mu ndëkk baale na te bu muy daw tamit keneen ku mu ndëkk kenn identifié ko mu teg dossier bi ci suuf loolu di wane ne justice ñaari ñaari euh, deux poids deux mesures ñu jàpp ay doomu jàmbur tëj leen ci kaso bi ci lu tegul fenn loolu mënuñu ko supporté. Alioune un ne mu ngi amal liggéey bu am solo waaw dama ñëw fekk si arrestation wu Pape Alé bi ñun soo xool ñun waa Koli Diop yàgg nañoo alerté ci loolu yàgg nañoo def suñuy point de presse ak suñuy conférence de presse mais soo ku ku jàpp ni mucc nga ci injustice injustice bii Macky Sall di teg ci ndoddal sénégalais yi yaa ngi nax sa bopp te nit waroo toog ba injustice bi soog a dal sa kaw nga soog a jóg man lu ma gën mooy presse bi lu ñu def nii tax dañ ko yéex a def presse bi dañoo war a ñëw bokk